<clears throat> Mes chers compatriotes sénégalaises et sénégalais, je souhaite m'adresser à vous dans notre cher pays se tiendront le 31 juillet prochain les élections, des élections législatives. Les Sénégalais seront une fois de plus appelés à renouveler le Parlement. C'est une échéance cruciale pour la survie de notre nation, de notre démocratie de notre liberté, de l'avenir des filles et fils de notre pays. Par vos votes, vous déciderez de la destinée de notre grand et commun bateau qui est le Sénégal. Mon modeste parcours, l'exercice de mon métier, ma soif de connaître mon terroir, et d'apprendre des hommes et des femmes qui ont fait son histoire, m'ont amené à rencontrer le peuple dans son entièreté et sa diversité, de l'écouter, de dialoguer avec lui, de s'enquérir de ses préoccupations et de comprendre ses aspirations fortes et légitimes. Ceci me conforte dans mon attachement à notre grande nation, ma fidélité aux valeurs d'humanisme, d'empathie, d'ouverture d'esprit, de solidarité agissante et de convivialité. C'est fort de ce constat que j'ai décidé de m'engager davantage à vos côtés en répondant favorablement à votre invite. Je suis candidat à la candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Cependant, votre caution morale est fondamentale, mais n'est pas suffisante. En effet, je ne vous apprends absolument rien. Une modification non consensuelle de notre loi électorale, à savoir le parrainage, a produit une hérésie en violant le principe élémentaire de la libre participation pour tout citoyen ou formation qui la désire à des joutes électorales dans notre pays. Cette démarche unilatérale dans le changement des règles du jeu est inadmissible, inélégante et n'honore pas notre pays qui a une si longue tradition démocratique. Notre position sur cette question est sans ambiguïté. Nous la désapprouvons totalement. Malgré cet obstacle dressé pour étouffer l'émergence d'une quelconque autre vision et, façon d'opérer, je vous réitère, mes chers, mes chers compatriotes, mon engagement à vous représenter dignement et vous servir humblement au Parlement. Le parrainage ne saurait être un obstacle pour euh, notre dévouement à vous représenter davantage, à sacrifier notre zone de confort et à questionner sans cesse la redevabilité que nous avons vis-à-vis de notre cher pays. Je vous invite donc, Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, à parrainer ma candidature, à parrainer ma candidature pour nous donner l'opportunité de mieux entendre, de mieux faire entendre vos revendications et attentes. Ensemble, nous tenons notre salut. Ensemble, nous vaincrons. Inch'Allah. Je vous remercie. ci fi gën a sori ci biir Sénégal suma mbokk waa caajaay waa mbuur waa Thiès ba fa gën a sori ci Sénégal waa Matam waa Podor waa Ziguinchor suma dëkku xol waa Kanel waa Njum fa gën a sori waa Ourossogui ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Thiès waa Kébémer waa Touba Mbacké waa Tivaouane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 Voilà, tenter d'incarner un leadership, c'est extrêmement crevant, c'est fatigant, c'est à la limite épuisant. Mais Sénégal, mon mot Le 31 juillet prochain, Sénégal va faire une élection yu élection législative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

ak li nga xamante ni moom bëggoon ko nësër wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé boo demee ci dëkk yi nga xamante dañu ñun ñoo leen sentiment lay sentiment bu un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu réaliser de grandes choses nga xam ne doomu aadama li nga indi le vicaire de Dieu sur terre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 li xew ci sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañu ko indi changer sunu nañu daan voté muy parrainage waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne jongante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi bi ñu koy def waxtaanewuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan parenage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi su ma yaay yi su ma papa yi su ma rakk yi su ma mag yi su ma bàjjen yi yi nga xamante ni yépp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbeugel seen tiofel ak surtout seen ñaante mosu leen gis suma jëm dama leen di wat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla nappkat yi ma mën leen waxal seen soxla ndaw yi nga xamante jamono bu ne ñoo jël gaal di dee ci géej seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati suñu kàddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a ne te mënatul nekk dootuñu ko nangu ndaw yi Sénégal leen nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi. ndaw Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen a dem noppalu tol bi du booy moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle ñun alternance waxuñu sax alternance générationnelle waxuñu sax alternative générationnelle ñun solidarité la ñu wax entre les générations moi je suis très bien placé pour le dire parce que suma maam moo ma yar saa bu ma ko daan tàggu di ñibbi si ci Dakar daf may wax ne ma yaa may tàggu rek wéetaay di ma gane conflit de génération li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations entre ces intelligences on a suffisamment construit de murs entre nous il faut maintenant construire des ponts et il y a aucune entité dans cette dans cette nation amul politicien professionnel amul ko xam ci bopam la nek amul selfish amul individualist, amul ko xam bopam rek moo ko xamanteni koo mën na tere jëm yi nga xamanteni défar defar sénégal mom mo leen yëkëti ñu egg ci barab yoy nga xamanteni fa défaré sénégal te japp nañ ne assemblée nationale nak wax dëgg yalla barab bu mucc ayib la pour waxtani réew mi barab bu mucc ayib la pour defar réew mi sëriñ fallu mbacké daf daan wax né li yées ci kilifa moy sa njabot sa buñu amé soxla rek sa sen xel jël la waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju kan mu kan mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci loo xam réew mi loo xamante ni fàttalikuma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage femme sans blouse blanche waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale.

capable nañ magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daal wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk leneen li nga xamante ni dinañ ko wax mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nous sommes libres de tout de toute partisanerie actuellement politique Nous ci une contingence politique Nous tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit Nous ñuy def tracer une ligne envisager une ligne boo nous koy construire bo xamanteni dañ koy ces sénégalais ces sénégalaises yi nga xamanteni sonu nañ ci bipolarisation bi nga xamanteni constater nañ dans cette dans l'espace politique sénégalais machianisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk dans un effort de co-construction war nañoo laisser toute la place au débat démocratique war nañ ci bàyyi place à l'idée à la pensée à la réflexion stratégique bari na ay kilifa yu ma xam yu nekk ci réew mi mënatuñoo addu sax ci débat public te pourtant ay borom xam-xam lañ Sénégal defal leen lépp te mënatuñ ci addu ñun xam nañ ci lu bari kon ñoo ngi ñaan rek ne defar Sénégal lekk la bëgg defar Sénégal lekk moom moo ñu yëkkati defar Sénégal lekk moo ñu ñor ñun ñi ñëpp ñu ànd kenn ku ci nekk waroon naa mën a toog ci suma place bi tey ñoo ma ko gën a mën ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a bëgg seen bëgg Sénégal sax damaa jaaxal seen bëgg Sénégal sax daf ma jaaxal donc patriotisme nag dañ ko donn Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu sacrifier pour Sénégal Et la lu pour Sénégal amul. Thierno Souleymane Ball la révolution Torodo lu mu dajul Sénégal amul waaye gis nga ko élégance ba ba mu révolution ba pare dafa jox Cheikh Abdoul Khadir Kane ne ko yow xam du du <laughs> donc ñun sunu lañ na Amérique ñuy de Abraham Lincoln di tudd George Washington France dit tout le monde veut être gaulliste ndax De lekk ndeysaan taxawaay bu am solo ba mu na France téye ci loxoom mu ne français yi lii mënuñu ko seetaan jóg leen ñun ñooñu la ñu nous suñu bët bëgg père fondateur ñu revendiquer ko ñooñu duñu leen nié ci histoire duñu leen mukk histoire ba génération bi nga Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malik, ak mag ñi nga xamante ni yépp ñoom ñoo seqoon réew mi Maulana Cheikh Ibrahima Niass ba ci doomam bi nga xamante ni moom moo fi mujj muy euh, moo fi nekkoon muy Seyda Mariama Niass nekk jigéen def ci jàng ak jàngale lu am solo son effort de guerre contre l'ignorance est inestimable waaye ñooñu du ñu leen jàngale ñooñu nag lañ bëgg a dem seen ndono lañ bëgg a yóbbu assemblée nationale donc patriotisme boobu ñun foofu lañ ko nàmpe foofu lañ ko jële foofu lañu ko jànge donc li ñuy def tey amuñu ci benn complex amuñu ci tamit benn regret parce que ñu bëri dañ lay ñeewant naan la li ngay dugg nangam ak nangam sama yaay soxna su tedd see fan yëpp nelawut waaw ah, waaye moom lii ci maamam laa ko donnoo ak baayam <laughs> ah, moo tax pexe amul li sañ Cheikh doon wax taxaw rek mënta ñàkk donc maa ngi leen di gërëm bu baax encore di leen sant di woo nag ñi nga xamante ni yépp ñun ñoo bokk gis-gis les mouvements citoyens góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñi nga xamante ni def politique mësul nekk seen yëf ñu leen di wax ne leen politique lu am solo la politique lu am solo la politique mënta ñàkk ci dundu doomu aadama waaye nag li ñuy bañ mooy nit def ko métier. ñi nga xamante professionnaliser la politique ci lu muy ah je suis dans les affaires fekk politique rek lay ah ak marto ak ak donc politique lu am solo la loolu moo ñun dañu gis-gis ci assemblée nationale laay wax du parlement dans le jeu des institutions moom mooy nekk li nga xam dañ koy jël teg ko sunu bët am yéene egg foofu di tàllal sunu loxo ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañ ak ñun gis-gis bii ñu ànd ñu liggéey Sénégal ànd nag song li nga xamante ni moom mooy nga xamante ni moo te ma wax ne léegi d'accorduma ci muy le parrainage ñu ànd waaye parrainage bi d'accorduma ci parce que c'est pas consensuel lu doy la lu yéeme la d'accorduñ ci moo tax ma leen di delloo bal bi sénégalais ne leen parrainé leen ñu le maximum possible lañu bëgg ngir ñu dem teew ci péncu ndaw réew mi ngir teewal leen fa sunu bopp yëkkatiwuñu yéen yéen a ñu yëkkati yéen lañu bëgg lii fi xew démb muy bul journée blouse sans blouse loolu lañ bañati mu am fi waaw loolu lañ bañati mu am fi ndax corps médical boobu ci biir Covid bi li ñu taxawaayam kenn ku ci nekk amoon nga fierte am mbokku médecin. kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokk boo xam ne yëngu ci corps médical ñu sargal leen tatagal leen suñu réew parewuloon pour dékku virus bu toll noonu waaye ñooñu nag justice tey jii mooy ñu mettre leen dans les meilleures conditions optimales pour ñu mën a def seen liggéey confortablement ñoom tamit ñu xamee responsabilité bi ñu am xam ne métier boo mën di exercer dans la vie dafa am un sacrifice boo xamante ni foog nga taxawee ko ba nga xamante ni di nga mën a rafetal sa digganteeg sa askan. Destin croisé deux points défi et responsabilité dañu am destin avec le Sénégal sunu borom tànnal ñu réew mu am solo mi réew mu mucc ayib bi lépp la am manqué wuñu dara lu ñu dem kon fokk ñu defaraat taxaway bi taxaw temm ak fulla ak fayda ak sel gu mat sëkk taxaw taxaway bo li li def ngeureumal yalla sunu borom lañ ciy wut crépuscule de notre vie nous avons l'impression d'avoir vécu inutilement moo dans ngi leen di gërëm di leen avons di talal suñu loxo kenn ngir sénégalais ñaanal ñu ñu nous ko tal ko ak avons yaay yi ak avons papa yi yi ak morom yi waaw suñu morom yi moom tey nelaw amatul pour man amatul guddeeg bëccëg rek rek ba am ndam ndax loo bëgg it jaral waaw waaw Sénégal yëpp tam ñoo ngi leen di jox rendez-vous dinañ ñëwaat man dama bëgg réew mi pour aimer son pays il faut connaître son histoire et sa géographie dinaa ñëwaat rencontré waat leen fa gën a sori waaw ngir dajewaat ak yéen ñu dajale rek li nga xamante ni moom mooy soxla yi am na lu bari luñ ci xam waaye dinañ ñëwaat gën koo xam gën koo nemmeeku waaw fa ñu nekkoon fauteuil bañ daan toog ngeen daan ñu ci gis ca télé ba fauteuil booba amuñu ci différence ak fauteuil bi ñuy dem occupé ci assemblée nationale waaye fee dañoo toogoon ñu jàpp ne fii réew mi toll nag taxaw moo jot moo tax perchoir ba lañ bëgg a taxaw maa ngi leen di gërëm wax leen sant